ndeysaan bi dimbalante gi te yàlla tax bu fekkee dafa nekk ci ñun. Mm-hmm. dem màkk gi ngay ay deux millions cinq cent trois millions wala ku gën a da ngay dem ñetti yoon ñeenti yoon ba juróomi yoon. Mm-hmm. di defar sa kër di am say oto di am say kii di maye te booy maye nit yi teew micro yi teew caméra yi teew ñu koy fësal wax. Mm-hmm. te sëñ Maodo Faye maa ngi ko ci bu baax te la chaque jour di wax loolu tey jii rek tamam bi ci loolu lu ko jëmale woon. dañuy nax suñu bopp xam nga ndax suñu bopp ñu ci bëri ñun moom ñi nga xam ne ñoo war a wax dëgg waxatuñ dëgg. ñi nga xam ne léegi wax ko ci dëgg yi waxatuñ ko ndax bu fekkee ki ngay wax dëgg ab ab dépense ci poosam jigéen ca kon gëmatoo yàlla kon kooku tamit doodoo ko wax dëgg dañu waxante dëgg daanaka doy na waar daal li ñu gis nii bu koor ñëwee ñëpp macha allah loolu lañ bëgg ñëpp jëm. jërëjëf macha allah. laal na yu am solo yu bëri. yu bëri la la tegle. Mhm. Euh, waaye xam nga diine rek ni ko yàlla taxawale dafa am solo. Mhm. xam nga itam. yàlla farataalul si yow. farataal na nga dimbali sa dëkkandoo. wante nag loolu du la tere dem màkka de oustaz. waaw doone ku ku am ku mu dendal kër rek te amul courant yow waroo de màkka. non non diine itam dafa am nu muy tëddee. parce que itam wërsëg du yem ba ilaa yow mi diin. Mm-hmm. yàlla dafa def ni kooku am wallaahu faddala ba'dakum ala bu mu wax ne rek dëgg la ñooñu war nañ leen a dimbali man d'accord naa ci moom bu baax que wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala ismi wal udwan mm-hmm. nañu dimbalante waaye nag du tere nit ki nga xam ne itam farata yàlla daf ko farataal mu mën dem màkka mu ne parce que koñ ba ma dëkk am na fa ay néew ji doole di ko teree dem màkka mm-hmm. loolu moom itam charia islami waxu ko te wax na ko nag ne ko na jël ci alalam dimbal dimbali ñooñu te yonent bi sax na ko ci akku dëkkandoo man baati shabaan wa jaaruhu jaayit foo lam yumin billah mhm. képp koo xam ne fanaane nga suur sa dëkkandoo fanaane xiif yow guddi googu na la te nga yëg ko mhm. na la wóor ne sa ngëm des na sa sa ngëm des na mhm. waaye na tam dàqantikuwul ustaas itam war nañu itam gën a lu ñun tamit suñu njaboot gi ñu ñu jàngal leen liggéey ak bañ a xeeb métier. surtout waaw parce que itam ay la yéwén dëgg la ñàkk am na am na ñoo xam ne itam seen wërsëg bëriwul waaye oustaz Sénégal yi liggéeyuñu. Mhm. oustaz Sénégal caaxaan ak toog di xaar wërsëg di def tawaakul te defoo tawakkul. Mhm. oustaz daf fi bëri. dëgg la neexul ba neexul waaye dañoo liggéeyul. parce que famille boo dugg yaay boo dugg oustaz. kenn kenn moo fay mooy liggéey te ñeneen ñi gis nga fi mu nekk ñax mi. damay joxe rek exemple bu jege jege xam naa am na kilifa goo xam ne waxtaan naa si ak moom dem dëkk mu ngi may déglu saa yoo bi jee juróomi saaku ñax teg ñax teg ko si tali bi xam nga saaku ñax yi loo koy jaayee borom mm-hmm. xar yi juróomi téeméer ñeenti téeméer. juróomi saaku ñeenti téeméer wala juróomi téeméer ñaata la. donc 10 000 francs taxaw na. 10 000 francs boo ko yóbboo sa yaay du fande. dëgg la ah. léegi ñun doomu jàmbur yi jóge ci yeneen. dèjà yaa ngi proposé jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ki ñëwoon tàllal ko loxoom mu ne ko li an yaxtati ba. waaw te te te yonent bi xam nga lan la ko wax. Hmm. xam nga l'islam moom du favoriser mukk mukk nit ku toog rek di xaar ñu. di xaar jox ko ndax ba waa ji ñëwee fii sabilillahi fi sabilillahi xool yonent bi ci biir bët yonent bi def ko ne nii kaay. Hmm. mu ñëw yonent bi ne ko waa yow loo am sa kër mu ne ko man kay aw ma dara sudul benn këll ak mbàjju bi may sàngoo man ak soxna si yonent bi ne ko deme indil ma ko mhm. mu ñëw indi ko yonent bi defal ko vente lan lañ koy aux enchères waaw mhm. ñu teg mu ne këll bi ku koy jënd mbokk mu néew doole xam nga sax mu ngi defee ni yonent bi da koy jaay jox ko xaalis bi mu dem dépense ko añ mu jeex yonent bi jaay këll bi kii ne ñaar téeméer kii ne ba ñu joxe mhm. pourtant yalwaanalu ko mu jël mbaaj ma jaay ko. Mhm. def ko ñetti parti mhm. ne ko parti bi yóbbu ko léegi kër ga ñu lekk ko. Mhm. mais parti bi demal ci marché bi nga jëndal ma buum. ak sémmiñ. parti bi nga bàyyil ma ko fii. ba mu jëndee buum ak sémmiñ yonent bi ne ko demal taxanali ma ba tey defe na ne moom day taxanali yonent bi pour yonent bi def ko ci lobbam def ko ci euh, euh, wanagam ay soxnaam di ko toggee. yonent bi taxan loo ko ba mu nekk benn taa. Hmm. yonent bi ne ko demal ci marché bi jaayal ma ko. ba mu ko ko jaayalee ba pare mu nekk xaalis bu bari mu ñëw ne yonent bëgg daal di koy jox yonent bi toog yonent bi ne ko gis nga lii sa fond de commerce la. Hmm. mu ne la an yaaxuza ahad. daal di indi xadis ba. fa yaxtati ba xoolal moo ba mu utiliser. Hmm. yonent bee doy waar. mu dem sa euh, euh, taxani taxan. xayrun. minhu mu ne loolu moo gën ci moom an yasala min an yasala nas aatawhu aw mm-hmm. jox nañ ko wala xañ nañ ko mm-hmm. kon l'islam du favoriser mukk fi sabilillahi tàlla loxo mm-hmm. ak ku mu mënti doon am na métier boo xam ne te dafa am xam nga sànq yaa ngi wax benn bàkkaar boo xam ne dara du ko dind bu du as saayu ilal iyaal wuti fansu fi manakibiha wa kulu min rizqihi mm-hmm. wa ilayhi nusur mm-hmm. moo tax yàlla dafay favoriser toujours liggéey ak góor góorlu li mu wax ne dëgg la nga nekk ci koñ bi nit ñi amuñu ku musul téye facture courant mm-hmm. yow ngay daw guddeeg bëccëg sa njaboot di daw guddeeg bëccëg sa jabar di daw guddeeg bëccëg ngeen dajalu ba am seenu mbaar ñee tëdd fas yéene du ñu xaar bu dul ku desal ca ba indil leen. te mu yore ay njaboot goo xam ne ñii mën nañoo fóoti. lemal sa ñii mën nañoo dem nekki. domestique mm. mooy dugg ci koñ bi liggéey jànq mm. ndax yow yaa ngi dimbali nit koo xam ne am na ay doom yoo xam ne suñu ñëwoon liggéey yàlla nga fay leen lu mu tuuti tuuti juróomi junni wala juróomi muy seen ñaq muy seen ñaq mm-hmm. ba pare nga jàngal sa doom di dignité mm-hmm. xam nga jël sa doom chaque jour nga ne ko demal sa tante ne ko na ma may ceeb mm-hmm. mu génn ci kër googu nga ne ko demal ci sa tante nga ne ko na ma na ma na ma may xorom demal xale boobu buy ñëw di ñaan moroomu nawleem yi muy fekk si kër gi xale bi da ngay dem ba gindi yonent bi nee na ñiy laaj bu ñu bu ñu dekkee yowmal qiyaamati yàpp kanam duñ ko wallaay dootu am masaxatul xam moo tax jamais ñun ñu favoriser tàllal loxo mm-hmm. te nga wér xam nga yalwaanu senegal gi oustaz mm-hmm. mais xam nga ne ñiy yalwaan fii mm-hmm. wax dëgg yàlla lan la ñu manqué ci cër manqué wuñ dara ah. est-ce que du loolu di du du du du du jeexantalu julli moo dikkul ci ñoom jeexantalu julli ñëwul ci ñoom mhm. pour wax la ne la il faut que ñun jullit ñu am courage mhm. affronter yenn problème yu wax ko te yàlla tax dëgg la bañ koo ragal mhm. parce que vraiment caaxaan bëri na Sénégal te xale bu góor boo xam ne bu yeewoo yow jàng ba pare am nga diplôme mais liggéeyagoo mais demal journal yooyu. Mhm. demal ci marché bi du doomu pël Fuuta yi ñoo fay nekk di yanu carton yi. ñaata la ñuy wàcce waale par jour. ok téyel ma foofu téyel ma foofu bu bu mu rëcc de bu mu rëcc. waaw am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko te ñëwaat salaamaaleykum wa rahmatulaahi barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. ok bisimilah mbokk. Euh, maa ngi euh, kii mbékkee bëggee seen émission bi. jërëjëf kooku. man la soxna Ndikku. Ndikku na nga def. maa ngi fi sant macha allah. xanaa Ndikku waalo waalo la. waaw gi ñu tuddee de waalo waalo la <laughs> mais bii pël la bii am dikku pël la. <laughs> ah waalo waalo yëpp pël yi ñoo bokk maam. pël bu amul nag la. <laughs> waaw pël bu amul nag la de moom vraiment seen émission bi neex na sopp naa leen macha allah li ngeen di wax neex na trop trop. a ah, nga wax moom bu deexee dégg rek macha allah ñëpp ñoo koy rafetlu. dëgg la te wax ji tey na macha allah daal. Mm-hmm. vraiment ñu ngi leen di bëggee daal. ñun tamit ñoo ngi lay bëggee. yàlla yàlla def jàmm saxal leen amiin amiin yaa rabbal aalamiin ah, ah, jërëjëf jërëjëf ñu fekkee wéeru koor gi ay at yu bëree bëri jërëjëf jërëjëf yàlla saxal ñu si diine islam amiin yaa rabbal aalamiin ah, jërëjëf jërëjëf Ndickou macha allah euh, mel ni euh, soxna xam naa ni comme li ñu doon wax ci ci ci ci penc nga xam ne. Euh, nit ñi euh, laaj bi tàllal bi tàllal bi il faut am na benn côté bu mu tudd. bu mu tudd yàq bi aussi war nañu war nañu di di di mu ngi mel ni azaka yi. Hmm. tey war nañ ko génne. war nañu génne azaka yi loolu moom Sénégal moom génne azaka ak ku leen kii la ñu yemale hmm. ñi ma ko sañ a wax. Hmm. parce que vraiment kenn mënul ne Sénégal alal nekk fi man damay wax rek xam nga yàlla bu ne wa kazalika ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu suhada ala nas déséquilibre moo am ci dëkk bi ñi am itam dañu wa wala takun bu mu nekk duulatan baynal agniya kay laa yakunu duulatan baynal agniya dëgg la loolu moom d'accord naa ci ak moom ci benn côté que alal ji dafa nekk ci diggante ñi am rek ñuy teralante kooku tamit l'islam d'accord ci te war nañu génne azaka yi jox ko nit ñi war waaye azaka yi buñ ko def nag jël ko itam dugalaat ko seen biir famille. pour di ko def taranga. dëgg la parce que azaka dafa am. foofu am na solo foofu am na solo téyel ma foofu ma jël ko ci bi. salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. allo. allo. salaamaaleykum. salaam. salaam foofu ziar naa waaw. na def naka waa Bargny. waaw ban ñu ngi fi. alhamdulilah Ndiour. ñu jërëjëf jërëjëf Maguette jërëjëf. jot de soxna Fatou Bintou. waaw maa ngi lay déglu soxna ah, Maguette. yaay la waaw maa la gën a bëgg nen tuuti. man maa la gën a bëgg yaay nen ne am sa doom bëgg nga ko. ah sopp naa allah. yàlla naa ci. ci ay doomam. wallaay wallaay bisimilah. am nañu waa Bargny ak koor gi. waa Bargny ñu ngi fi. naka keroog de dama déggoon kuy wax ne Bargny dafa am benn jaan bu gumba. <laughs> man nag jaan bu gumba boobu laa bëggoon a wër ba xool jaan bu gumba nu mu mel. Ah, <laughs> wax na dëgg nag eh yàqul der parce que foofu nag dañu war a jóg foofu nag jàppale leen. waaw tilim bi moom war nañ cee wax moom. waaw moo tax nag il faut que itam ñu jàppale leen ci loolu. waaw war a vraiment. Eh, di leen ñaanal sama ana ñoom eh, wallaay wallaay wallaay. ñoo ngi nuyu ñoom Oustaz Samb ñëpp leen den ñaanal foo leen toll. wallaay amiin seen soppe la Adja seen soppe ci Bargny. wallaay Adja. Mm, Adja Diop ci waaw ah yaay booy ne ko koy ziar bu baax. di leen ko ñaanal foo toll. wallaay wallaay ne moom tamit bu mu ñu fàtte. soxna Fatou ba am sa numéro. Ah, léegi da ngay laaj waa dinañ la ko jox incha allah ñoom laa sana. <laughs> kontaan nañu ngi nuyu kilifa diine yi nekk baar ñi borom xam yu mag. suuf suuf famille alaaji am na pa bu fa nekk borom nitu yàlla boo ko xam ne Cheikh Ahmadou Bamba ziar si na ko Seydi Hadj Malick gane si na ko dañ koy defar seen journée culturelle Yoro Ndiaye alaaji sëñ Yoro Ndiaye njabootam dañuy def benn journée bu mag ñoom imaam ak ñoom sëriñ Sàmb mhm. ñuy ay xale yu bëri xam-xam alhamdulilah xam nga dégg naa miraas moom ak zakat ñoo ko gën a bi ñuy wax <laughs> xam nga oustaz ñu ngi yemoon ci aaye zakat mhm. zakat dafa am ay borom ci laa doon wax léegi mhm. ma ni euh, génnee ko comme li nga wax léegi génnee ko di ko joxante suñu biir daf ko mu nekk teraanga je pense que ni loolu dafa am lu muy lor waaw parce que li li zakat doon liggéey doon liggéeyatu ko. waaw te encore itam cofet cofet bi. Mhm. di jox ñi ñaar téeméer di jox ñi junni. mënul mhm. dindi. mënul sedd faq xam nga yow nga seetoon kenn. nga jël li nga génn ya bu dee un million wala deux millions ñu jox ko kenn ba pare jar na sax nga encadré ko xam nga am na association yu fi nekkoon yu mel ni Fonds sénégalais de solidarité mhm. islamique dama liggéey ak ñoom ci lu bëri ñuy jël azak am na yu bëri nag yu juddu sax mais ñoom quand même wóor na ma ne ñoom seen zakat ak El Hadj Ousmane Fall moom génn na àdduna bàyyi na fi ay traces yoo xam ne jël nañu ba tabax benn mm-hmm. orphelinat mu ngi tëngeej nga xam ne ci zakat yi ak nit ñu baax ñi li ñu leen doon jox ak madame taal Ndeye Khoudia ñoom ñoo yore woon commission mm-hmm. boobu di ci liggéey lu rëy rëy di dimbali doomu aadama yi di mm-hmm. sa ñoom dañ doon xëy dem hôpital la daan teg am na benn bank waaw ba ndeysaan macha allah salaamaaleykum mbokk bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ok mbokk yaara Sidi Fall waaw. jërëjëf Sidi. ñu leen di ziara. ñu ngi leen koy delloo Sidi. yal na yàlla nangul ñu koor gi. amiin yaa rabbal aalamiin Sidi. li ngeen di wax yàlla na dugg ci napp nit ñi. amiin jërëjëf. soxna si fi mu duggoon léegi loolu moo yokk a ma dugg man dama daan préféré déglu rek.